jaajëf maam Mbaye ñaa euh, euh, yëkkati na ay kàddu daal wax ni waa jii ñu naan mooy candidat bu président Macky sàll cent vingt maires yi nga xam ne ñoom ñoo ko tànnoon ngir mu parrainé ko mu jàll quatre-vingt-douze yëpp banañ ko ngir aw nekkee na mag ni mu ni mu mel ñu déglu dellu siwaat bu fekkee ni que dañoo bëgg am xolu sénégalais yi am nañ lu ñu teg ci kanamu bëtu sénégalais ni leen wóolu leen ñu non non xam nga nit ki buy wax day wax li nga xam ni bu génnee loolu lay def man yàlla nattoowuma loolu man mënuma tricher boo seetloo bi ñuy wax waxi candidature ci suñu parti mais am na ñeenti nit ñu wax est-ce que man dégg ngeen ma ma ni diw laay jàppale jàppale ma kenn dama ni liñ tànn dinaa ci nangu biñ tànnee toog naa ñeenti weer waxuma ñoom ñuy déroulé waxuma parce que man jàpp naa ni du ma yàq mais bu dëgg jotee dama koy wax beneen bi ma waxee ñu naan wëy ay dañ koy li ma wax tey la gën a doon dëgg dajalewul parti bi mais tey la gën a doon dëgg cent vingt maires yi ko parrainé woon ci parrainage bi ngay wax tey quatre-vingt-douze yi àndatuñoo ak moom man wax naa dëgg ah oui léegi nag ku gis ay jafe-jafe responsabilité bi ñu am li ñu ameel sénégalais yi mooy équipe ki ma àndaloon bokkul donc du ma dugg ci par parparloo du ma dugg ci loo xam ni du doon njëriñu réew mi du ma dugg ci loo xam ni noonoo ak nit du ma tee nangu dëgg noonoo ak nit nangu lim mën noonoo ak nit du ma xëccoo ak nit du tax ma dugal sama bopp ci loo xam ni suba du ma mën a jàkkaarlook samay moroom. voilà jërëjëf mi ngi noonu El Hadj Modou Diouf Assane dégg nga euh, Mambay ñaa ba léegi bàyyiwul man Mambay moom vraiment jaaxal na ma nag parce que Mambay depuis que président Sall tànnee choix am ba léegi euh, te bu ñu gis Mambay ci bàyyi faalu président Macky Sall la bokk maanaam ku ko gëm la léegi lu tax mu tànn candidat te saa sorti bu mu def. di tiire ci Amadou Ba bay wax ni 92 maires yi bàyyi nañ ko te loolu du politique bu baax ci Amadou Ba ban jàngat nga ci def. waaw man de ay jàngat yooyu tuuma rek laa ko teg loo xam ne yëkkati na ko teg ko ci kaw président Amadou ndax it ñooñu ñun gisuñu leen dégguñu leen tudd luñu tur. ñan ci ñu ko bàyyi. waaw daa wax ni bàyyi nañ leen rek te lim ni moom du ko def yaakaar naa ni jëru ko boo xoolee ñi dee ngir moom am na. ñi dee ngir ngir moom mii. ñi dee ngir moom. waaw ça comme ça tey jii bi mu pelentee Ousmane Sonko ñu woolu ko. Hmm. am na ñu si dee. waaw. léegi nag ba mu xamee ni lii mu def nii lii kat dafa am luñ ko tuumaal comme li ko Amadou Ba mii tuumaal ba tax mënut a xajoo Amadou Ba loolu yi la. Ah, waaw wax na ko. Ah waaw. moo tax Amadou Ba ku njëkk a wax di. Hmm. léegi nag moo tax mu mënutu koo xajoo léegi nag lee tax lee mu wax ak euh, lee mu wax Sonko nañ ko yóbbu ko si yoon ba tax ay nit dees ak yeneen ak yeneen ba taxit mu ni jëru ko Ousmane Sonko génn si géew bi ngir moom. Hmm. mu taxaw ñu teg ko ni ko Ousmane Sonko bu bu mu bokk si élection yi mu def kut ko kut bu bokkut si élection yi ay nit gaañu si ay nit ñu tëj leen si kaso bi ay nit dee si kooku nag bu wëlbatikuwaatee bëgg ñu waxaat leneen ñun Sénégal yi ñu koy gëm ba ma gis sax am ñu koy partagé naan yal na yàlla xeeb dolli kii mënut a wërtat a mën a wax si réew mi lu nit def si boppam bu fekkee ñun ay nit lañ laa wax. est ñu koy déglu dañ ko déglu pour xeex ak kële rek. jurut ñu koy déglu. kii tey jii bu lu mu mën a tuumaal Amadou Ba wala lu mu mën a tuddoo président Macky Sall ak lu mu fi mën di wax suñu yoon mu waru see nekk. Ah dañ ko war a jël ni ko sant nañ la gërëm nañ la. maandu ci ay mbiram. ku mu woo ne ko kaay raxasal ma sama oto fay ko 5000 koo ko bañ. ah ku kaay liggéeyal ma sama kër koo ko bañ. ñu fexe nuñ ko génnee si waaw ndax wax dëgg yàlla lim ji réew mi. Hmm. bu fekkee réew mi réewum dëgg la wax dëgg yàlla lim leen ji yebuñ jéem koo góob hmm. ndax lim leen ji kat ay nit ñoo xam ne tëj na leen kaso bi ñoom maam paate bis bi wuy ji ñoom maam paate ñi si lañ leen tëjoon si kaso yàq seen place maam mbay a tax hmm. ndax bis bi ñu leen wooloo bañ leen di jàpp sama kanam ba muy wuy ji maam mbay am na ñoo ni dee nañ am na ñoo xam ne tëj na leen si kaso bi am na ñoo xam ne yàq nañ seen liggéey hmm. loolu lépp mu ñu def maa tuumaal loolu lépp nag su amee li ñu ko war a ji mooy maandu ci ay mbiram lu mu wax ñu ne comme ñu ko suñu comme liggéeyloo nga bañ xanaa du sénégalais. ah sénégalais kat bu def jëfi sénégalais moom da ngay maandu ci ay mbiram léegi man de loolu laa gis loolu sama xalaat. kon yow suba bu la woowoon liggéey nga bañ. déedéet man kay wóorul. wax dëgg yàlla koo xam ne tout moment mën na laa yóbbu si yoon moom maandu si ay mbiram day gën. yow boo wàccoon fi gis ko yorub saak. waaw ah. Ah? ah. yéeg la asan ah? saak bu def lan yu gisub saak rek maa am ko kaan ah asan aywa. maanaam saak bi def lu diis. déedéet saak du fi. bu def rek wóorul sa xaalis laa wax ni la Assane kat damaa bëggoon nga liggéeyal ma ci lii. mukk koy laasi naa ko defi moom wax dëgg yàlla man kay ay mbiram moom. xaalis mën ko defi la bëgg sa waay kii ko kenn defi la ko honoreel Assane man sa waay def. dafa bëgg ndax sa waay de. non laasi naa ko defi loolu moom xalaatu ko léeg bu ko sa waay defoon mu wàcc. fii ngeen di xëy muy tagg bàmb. <laughs> non xaalis doo ko yóbbu kër waaye du ko lekk. xam naa duñ ko yóbbu kër waaye doo ko lekk. ngir war ma war ma xaalis naa ko defi. defi la. <laughs> doy na sax. alaaji noo gisee ay propos Mame ci candidat wu bi nga xam ne saa yu génnee ci moom lay tiire. daa sant yàlla rek alhamdulilah parce que ah. lu am solo la. Euh, xam nga pare na saa yi euh, boo bëggee daaneel kër gële. Hmm. mu jafe la lool. waaw mu am ku ne ci biir kër gi di toj. Hmm. waaw danga naan na toj a ah toj. ah. loolu di kay ah, nga bëgg daaneel kër gi mu jafe. waaw mu jafe maanaam ñu baare ko ba yow mënoo woon yegg si pour kii ko. léegi am na ku nekk ci biir di toj di wut kaay yi nga xam ñoo nekk ci biir pour di toj nañ gën a bari kañ tara joxe kër gi kër gi kañ <laughs> nakaaw te nu mu gën a daal rek kay ko xamal lu borom lu ñaaw waxal. ku mën a yoole sa moroom yoole. ah oui ah nañ yoolente rek. yooyu ay yoo la mais ñoom li ñu def fu ñu ko teg. ah waaw fu ñu ko teg ci yoon même Farba Ngom laa gis ku ci tagg Amadou Ba ak di ko aj ajal hmm. mais ñoom ñëpp dañ koy daaneel. ah non c'est que xam nga xanaa président Macky Sall mi seen kilifa. non du koo jiital ñu koy fakkatal bu ñu dem ci rajo ak di ko xas. waaw ah. léegi lan la. waaw ah, mooy li nga xamante ni bi xam nga parti boo gis songe bu ci àddina hmm. dafa am noo xam ne noonu lay kiiwee maanaam parti boo xam ne li ko téye Euh, ay ndombay tànk la. ak xaalis nii rek lay mujje hmm. Hmm. parti bi du ay ngëm-ngëm a ko téye quoi. la sii di waxoon ci powam xaalis. waaw ay xam ay ndombay tànk la ak nit ñi di am xaalis ak yooyu ku ci nekk noppi ñun nit ñi dañuy nopp waale di muñ yu bari ñu naan leen ñu ngi muñ mais yaa ngi leen di gis nii ñu ci bari dañuy muñ parce que ndomba tànk bi moo tax ñuy muñ lu bari. Hmm. mais ci kanam tuuti di gën a gis yeneen i mbir. Mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam ne xam nañ ay mbóot yu baree bari ci parti bi. Mm-hmm. te dinañ ko génne. Mm-hmm. waaw. ci parti walla ci Amadou. ci parti bi ak ñëpp léppay génn lépp ci mbedd mi lay mujj. mbóot waaw journaux yii di bind. léegi nga jekk jékki gis ñu wun bëti seeni pilim. waaw na président Sall yore puudaram rek président sa puudar mbu mbóot bu génn nga nga puudar. waaw waaw. nii moom. booy boo xam ne ñëwagoo ci jàngat bi de. ay ah, bëgg bëgg a toj kër ku la koy tojee jëlal rek waaw non xam nga jàngat lii moom wax dëgg fa yàlla bi ci jéem a bugguma cee wax sax muy jim nuru lu xaw a jub non non non alaaj xaara alaaj xaara da nga fay nekk ngir jàngat yow xam nga ne yow amee ah, li ma wax kay jàng wala déggoo li ma la nee naa la kër koo xamante ni da nga bëgg kër gi daan ah. yow da nga bëgg gi am ci kër gi daan non bu daan na kër kër gi ban intérêt pour nit ñi prisonniers yi génn ñi jàpp ci kaso bi ñëpp daal dee génn réew mi daal dee dellu ci li nga xam ni mooy dal ak kii loolu rek. ah kër gi bu daanoo prisonnier yi génn ah prisonnier fi mu toll am na xale yu bari yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi lan moo leen fëtte peut-être bu keneen ñëwee ñooñu danañ gaaw génn ci kaso yi danañ delluwaat ci seen. njaboot kër gi am na ñu fa ne de. Ah, kër gi am na ñu fa ne de. ñeneen ci kër kër gi nga bëgg a toj. Ah, am na ñu koy seet de ñoom ñoo koy toj dama ne. waajaa yor kii di toj man kañ toju damay seetaan dama ne du ma ne leen fii poto ngi fii wala fee kii ngi fi naan leen fii man kañ damay toog ne tegale samay tànk di seetaan waaw. <laughs> xanaa bu ma leen mënee wax ne leen poto ba leen da kii leen ko wut leen abal leen si saa yi ñu dagg poto ba wax nga abal leen ñu dagg poto bi waaye kër kër gi wax dama ko dut dama <laughs> ñëw daal maanaam di jàpp ci déet man toju ba de. kër gi xanaa amoo fa mbokk moom moo ñëw di toj. kër gi amoo fa mbokk. ah moom moo ñëw di toj kii bi mooy toj. mais nit bu dee def lu mu xamul da nga naan li ngay def. bàyyi ko ah déet doo parce que. am na yu bari yoo xamante ni bii tamit. ànd nga ci daal xaw na quoi am du du ànd du ma ne ànd naa ci waaye daal wax dëgg fa yàlla lii muy wax moom dara naqariwu ma ci. naqariwu la ah, man de man de Mame wax dëgg yàlla fu ñu gisantee man mën nañ ñoo àtt ndax lii mu wax amuñu ba na. duñ la àtteeg kenn yow yaajee di défier ci koppar yi naan ndox gi yéer a yam. <laughs> non sérieux waaye waaye jële di défier naan buñ ñëwee. non non non li mu wax amul ko mi ngi koy xaar ba mu def ko. waaw tam wóor na ni bés bu sa waay ji war a saak barki rasul dañuy football nga la football la ñu def waaye de xaaral mu ñëw ngeen daan lan ah, da ngay jékki-jékki rek gis muy gis mu tungoom ko ca kaw xam ne kii du moroom kenn dañ koo tooñ waaw Sonko na bàyyi tooñam yii mu nekkee ma mbay leeral na ma lépp fa lay loolu lay wax barki yàlla waaw loolu lay wax <laughs> daal de waaw danaat hélas hélas yow yëf yi xamoo nu mu demee hélas man bi ma xoolaatee yëf li ma gis mooy Mame Mbaye dañ ko parce que yàq sab der tàmbali <laughs> ku di la convaincre barke yàlla naan man ba may waxit waaw dama jaaxamul woon dara <laughs> waaw waaye dañ maa leeralal yëpp gis nga hélas ñii lañ ma taajee leeralal waaw waaw <laughs> te Sonko dinaa ko dinaa ko affronté la ñuy boole ba noppi rek daa dee rek Sonko ñoom àndal ñëpp danaa leen affronté loo ci man léegi <laughs> waaye yow bii it boo dajee woon ak Bambey ci ci koñ. lii ngay jaaree tefesu daanee dem sa bu ñu dajee dañuy xeex. <laughs> doo xeex bu ñu dajee moom jëlal pause laa koy wax maa ngi sa kaw. doo li mu wax Amadou Ba jaaduwul yaag affronté mais. non non ak ñoo sore Mambey li mu wax Amadou. affronté mais bëgg nit ci saakam saaku xaalis. non non alaaji kilifa bu xasee tànn da ngay da ngay da ngay romb. da ngay da ngay da da ngay da ngay soi am. waa ji escroc dëgg. kilifa da nga koy respecté <laughs> loolu kañ def yéen a ko moom. <laughs> moom yow nag yaa koy ubbil buntu naan ko bu yoroon ab saako xaalis ak yor lu diis xam nga yooyu yëpp yaa koy ubbil buntu boo xam ni fa lay jaaree. nu alaay kii garmi la nag dañu koy tooñ yéen a ngi asal loolu du ko eh, eh, na ma woo rek proposé ma daal a gis. <laughs> di xam léegi kon waxatul bu woo léegi pare naa dem xam bu njëkk ba da de da ngay de bu ko bu bu bu ñëwoon ko ko wax. léegi nee na na ma woo. na ma woo du ma dem. ak lu ma mën a proposé. même bu la ko yónnee woon da nga ko xam likit likit ak yëpp. bu la yónnee woon delloo kii la. na gis. dana xam man maay kan. ay jë.